tubaab da daan ñëw bëgg a bronzé def taati neem tëdd ci tefes gi ne day bronzé wu ñu ne dañ ko interdi ci réew mi tey nag jamono dox na ba amatul interdiction ci réew mi parce que lan maam Abdou mi doon bañ la ma daa newatu fi te amul moroom ci réew mi kon amul keneen ku war a toog ci palaasu maam Abdou mën a bañ yenn yi maam Raphaël ma koy bañ ak papa Ibrahima Dramé ma koy bañ ñooñu askan wi joxuñu leen bopp. bu dee papa imam ndaw moom yóbbu nañ ko damay laaj rek question rek lay laaj tiktok baal ma avertir na ma avertir na bi ma wane la tàppate leen buñ bëggee mu continuer ay question dong laay laajte question dong dong dong laay laajte ndax ndaw yi yéen la yi réew mi yaakaar ndax yéen yena fasiyene top suñu ginaaw gi fasiyene yor galañ ñi yéen la mam abdou yakaron ndax esprit bi ngeen di demé ak seen bàyyi ci esprit bi ñu leen di sétane seen ndey di leen sétane ci esprit way kat yi ñew ku gëna bon lepp way ñu ne yow la ñuy gën promouvoir yaay ëpp vue damay laaj ndax ñun suñu mérite kilifa yi li la ngeen tontu ma nak soxlo ma ay saga nday de tontu len ma rek ndax li la sen mag ñi ngeen di dem di jaamu ji li lañ mérité ndax dégguma ci ibadu nak ay kese ak ay tidiane kese ak ay ni kese ak ay layene kese yenn na ca baar ba yenn na ca boit ba yenn xam ku gulu gulu gulu gulu nu muy def yenn xam ku fóon nan lay xoole xam ngeen ko mokal ngeen ko trop Đã may lệch. Đã may lệch. ndax yeen la réew mi war a yaakaar ndax kilifa yi mag ñi fi jaar ay dof lañu gënoon soxla ka ay nit ñu siwlise ndax réew mi bala ngay am mana nga doon ku xayadi ku dofe damay laaj rek atelier yaa ngi fi entreprise yaa fi géej fi ñu ngay nangul licence de pêche yi ñu ngi leen di nangul seen ressource ñu ngi fexe ba réew mi entreprise yi mën a am doole ngeen lank ne du ngeen dem formé bu ji ñiy dof dof lu ci côté tarixa ña nga tay dof dof ñi bëgg a créer ay dof ñi ngi créer ay dof te ñu ngi réussir parce que ñu ngi am ay dof waykat yi ci réew mi ñoom nga xam ne nee nañ tayal nañoo liggéey te bugg ñoo formé kuy liggéey donc ñoom ay kat lañ bëgg façon bu ne dinañ ko génne te dinañ am tamit ñu leen wër dinañ am askan wuñ doflo pa yi setan tam nee nañ dañuy toog fas yéene seetaan yi tamit fasalika damay laaj damay laajte rek ndax ñii ñoo fas yéene yor seeni ndono ndax ñii ñooy tiitaroo maam borom tuuba ndax ñii ñooy tiitaroo alaaji malik ndax ñii ñooy tiitaroo mam baylaay ndax ñii ñooy tiitaroo Baye Niass damay laaj rek ndax yeen ku leen xol war naa naw ci magi content ci ñom ci liñ def ci sen askan lan ngeen di delo magi ñi damay laaj laaj rek lay def nag xuloowuma xeexuma damay laaj rek damay laaj ndax li lañ mérité damay laaj ndax ku wara jokk ci façon doxalin bi nga wara damay laaj rek su ma paree nag ma continuer ak yéen maam Abdou daal ba mu ci tolloo yéen kilifa yi réew mi moom mi ngi nii. fi seetlu ay xeetu yàqu-yàqu yoo xam ne mi ngi bëgg. mel ne fii ci Sénégal dañ seetlu ay xeetu yàqu-yàqu yoo xam ne mi ngi bëgg a tukkal réew mi bàyyee ndiku gi ëpp bi ci gën a am solo moo di dem nañoo dem ba sécurité publique amatul fu neex waay mu sàcc. sàcc ba noppi yore sa ngànnaay rey sàcc alali jàmbur ba noppi faat bakkanam loolu ñun ñëpp seetlu nañ ko ci réew mi mu nekk mbir moo xam ne mii ñi yàlla jox kattan ñu yore doole fii ci biir réew mi muy président ak ñi nga xam ne ñoo topp ci ginnaawam di gouvernement ñoom la yàlla jox doole pour ñu war a régler loolu ndaxte kilifteef mënul ñàkk ci réew ki yàlla jox kilifteef jox la kàttan goo ko war a exécuter yow yaa war a fexe ba assurer mbooleem ñi nga xam ne bii dañoo dëkkee ci réew mi nga assurer leen ba ñu mën a am sécurité suñ borom tabaraka wa taala wax na ne ñi nga xam ne dañuy dox ci kaw suuf di xeex contre suñ borom tabaraka wa taala wala ñuy attaquer guerre sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallama wala ñuy yàq ci kaw suuf tax ba nit ki mënatul tëdd nelaw mënatul génn wóolu ne bu demee dana bàyyi njabootam ci jàmm yàlla nee na ñooñu atte bi ma teg ci seen kaw moo di nañ leen rey kon boog defe naa ne jaam warul ëpp yàlla yërmande yàlla atte yi nga xam ne moom la wàccee wax ne ku def nangam nañ la def nangam atte yooyu suñ ko doxaloon kon ba léegi réew mi dana am jàmm kon boog euh, maanaam bokk ma ñëw ma man pour applaudiser dégg ngeen fi ma jaar suma dara dama nettali li yàlla wax fii kenn du fi applaudiser ñun ñëpp a yem kenn yarul ci su ngeen yar woon du ngeen tàccu ci jàkka ji nañu déglu lu ñuy wax suñ demee ñu jariñoo ko rek ñun ñëpp a bokk réew mi ndax jàmm am yan lañ ko yàlla defal waaye man du ma jóg pour di waxtaan dara loo xam ne dama cay tontu dara walla ma di ca waxante dara wala ma di ca gaaral kenn قال الله قال رسول الله rek ci lay wax ak ak olomaaw du caageen leneen ngeen baal ma sëriñ bi nee na su fekkante ne bi loolu am na kon ñi ngi ñaan ñi nga xam ne bii ñoom la yàlla jox kilifteef ci réew mi ñu seet nan la ñuy mën a doxale ba jàmm am ku ci nekk mën a am sécurité te loolu pour mu mën a am nguur gi ak kilifa gi na jox ñi nga xam ne bii ñoom ñoo yore tribunaux yi di atte ak ñi nga bi ñom ñoo wara dogal yoni ñu jox leen doole joo xamne ne danañu mëna wéyel yoon te kenn du def benn pression ci seen kaw <coughs> mam abdou de bam ci tolol lii assemblée barki demb nak wa keur Macky Sall fi nekkon ñu ne dañuy pénaliser goor nyu ñu bañ ñu ne peine de mort pour ñuy rayé ñu bañ lutax pour ñuy rayé ñu bañ parce que ñom ñoo jënd 46 milliards d'armes ñoo fi nek nak ba légui ñun nak xex nañ joxé nañ dérèt joxé nañ xaalis xañ nañ suñu bop réew mi joxé nañ coono ju ne yëkkati nañ réew mi tek ko ci ay loxo bañ toogeeg légui ray gi da gëna tullé mal man nak ma am ci luma bét lool ma ngi xaar nak né nañ dañ faj du lool lañ wax balé lañ yor jub jubal jubanti xaw ma ndax côté xaalis kese la wala côté bakken man nag bakken bi laa taxawee maa ngi xaar nag découragé gu ma de waaye maa ngi xaar te yor sama làmmiñ bii ak samay bët di xool en tout cas daal la woon woon neegul de ñi ngi xaar réew mi nag xale yi xale yi ndey sukk na di len jur jaare fa bakkenam dem ndey sukk na jur len ba nopi jaare fa am ay kor yu dul jeex xale yi lay waxal bu ngeen ñewé torof torof yoy yep jall xalaatu len kan ngeen di teud febar lu dul lan dem jangi ju gulu gulu gulu gulu ñen ñi bab dem ñu tok naan len lay lay lay ñu jël ay paaka di jam seen yaram yakar na loloy aduna Thank you.